ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفراق رضي الله عن تاج العارفين قطب الأولياء شيخ السيوخ أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني شريف سخان الله من بحره بأعظم الأوان موك جلد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي جيتل سي سنيو نيو كنو الأمون كدو الموم السيخ سيد محمد المصطفى المكتوم حفظه الله وأيده ونصره ñaanoo ko yàlla yàlla sàmmal ñu ko yàlla aaral ñu ko yàlla laaxal ñu ko fa lox yàqat yàggul moom ak mam Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine. di nuyu mboolem ki safo Maktoum di jiital si nuyu bi mam Cheikh Ahmed Tidiane Diop ñu koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla sàmm ko yàlla aar ko ba lépp lu mu bëgg si liggéey yàlla mën ko matal incha allahu taala ginnaaw ga nag ñi am loo xam ne dañ koy andi mu nekk ci wàllu mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk loo xam ne am na si ñu wax ne mawlid yent sallallahu alayhi wa sallam judd yent sallallahu alayhi wa sallam gàmm bidaa la léegi man bidaa boobu moom lay ñëw ne lu imam Shafii daal di wax al bidaa bidaataani bidaa al xasan wa bidaa al xabiixa dañuy wax ne bidaa ñaari bidaa moo am mooy bidaa boo xam ne bidaa xasan la ak bidaa boo xam ne bidaa sayyi'a la léegi li may wax fa mooy kullu bidaatin dalaala ñu su bëri dañuy jàpp ne kullu googu kullu aam la te damay wax ne kullu googu nekkut aam parce que kullu googu soo ko bëggee dafa aam bi maanaam mën ngaa daanu ci lu bëri ñu delluwaat ci waxu boom xam-xam yi ku si mel ni imaamu nawawi dafa wax ne kullu googu nekkut kullu aam kullu googu bi maana lafzu bi aam la waaye na maanaahu xaas la dañuy wax ne kullu gi lafzu bi aam la bi maana jëmmi baat bi dafa matale waaye nag bi maana maanaa bi moom xaas la lu tax mu ne maanaa bi xaas la parce que kullu yëpp soo ko bëggee daf ne kullu boo gis kullu aam la kooku mën ngaa daanu ndax awalan mooy alquran dañaa jàngal ne tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha mooy bay borom bi subhanahu wa taala di alag giiwaat ndax kooku klu la jëfandikoo te aat yent yàlla huut moom la fa borom bi subhanahu wa taala yónnee woon alayhi salaam ba mu fa yónnee borom bi subhanahu wa taala di alag xeet boobu te boobu am amoon na ñu gëmoon yent yàlla yent yàlla huut alayhi salaam te borom bi subhaanahu wa taala foofu mi ngi jëfandikoo kullu comme foofu mi ngi jëfandikoo kullu kon kullu googu soo nee kullu gi aam la kon boobaa da ngay wax ne kon ñu gëmoon yent yàlla Huud alayhi salaam kon dañuy duggaale si mbugal ba te ñoom bokkuñu si beneen bi mooy mooy kullu goo gis ne kullu gi aam la damay wax ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax si benn xadis ne kullu aynin zaaniyatun bépp bët booy gis day njaalo te yow mu jàpp ne kullu googu kullu goo gis la te damay wax ne damay laaj ci ba xam bëtu yenent yi est ñoom ñoom danañ njaalo ñoom duñu njaalo ndax parce que ñoomu boo mi subhaanahu wa taala moo leen ñoŋel moo leen ñoŋel beneen bi mooy soo ne bëtu yenent yi duñu njaalo kon boobaa mën ngaa saxal ne kon gàmmu moom bidaatul xasan la damay wax ne sunnatul xasan bu dee na da ngaa wax ne bëtu yonent yi dañuy jaalu na kon boobaa kooku da ngay kooku boobaa yéefee nga ndax yonent yi soo tumaale loo xam ne jaaduwut si ñoom dañ lay yéefeeloo dañ lay kéefeeloo beneen bi mooy kullu aynin zaaniyatun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te damay wax ne kullu aynin zaaniyatun soo ne maanaam silmaxa da ci dugg kon boobaa mën ngaa mën ngaa def njumte est ce que bëtu silmaxa mën naa mën naa mën naa mën naa jaalo parce que seen maxa gisul ku gumb gumb bi gisul kon kanaa gisul kon boobaa jàppal ne kon boobaa gumb googu montu njaalo te soo soo nee nag bëtu seen maxa da ciy da ciy génn kon jàppal ne bi maanaa gàmmu moom euh, bidaatul xasan la bidaa boo xam ne ñëpp ko ñëpp ko rafetlu damay ñëw mooy dalilu ne la parce que yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa wax nee na man sanna fi l islaami sunnatan xasanatun falahu ajruha wa ajru man amila biha baadahu min gayri an yanqusa min ujurihim shay'an yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne képp koo xam ne yoonal nga ab yoon ci lislaam yoon boo xam ne yoon bu rafet la yoon boobu képp ku jëf si yoon boobu da nga am tiyaaba comme nu ko comme comme nu ko aji jëf ji nu muy amee tiyaaba noonu ngay amee tiyaaba te du yokk du wàññ si sa tiyaaba dara kon loolu nga gis ne bidaatu bidaatul xasan am na parce que damay wax ne lu tax ma ne bidaatul xasan am na damay wax al ixtifaal bi mawlidi nabi moom bidaatul xasan la damay wax ne sunnatul xasan la ndax Seydina Abubakar ali Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom moo dajale alquran te jamono boobu mu koy dajale moom booba ginnaaw ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di faatu du ñu wax ne Seydina Abubakar moo gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran ba tax mu dajale ko te loolu ginnaaw sallallahu alayhi wa la te alquran jóg ba léegi moom la ñuy jàng ba mu ko dajalee mu ngi ko tuddee mushaf Seydina Omar radiyallahu anhu moom ti dañuy wax ne maanaam comme naafele bi ñuy naafele sa ko wéy ko si jàkk yi moom Seydina Omar moo ko moo ko sos te amutoon si jamono Seydina Abubakar amutoon si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa kon amutoon si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy wax kon Seydina Omar nekk tettalu na Seydina Omar moom moo gën Seydina Abubakar ba mu ñëw sos lu demel ni lu demee ni bi maan nii naafale wewe ko si gàmm si si si jàkke yi beneen bi mooy Seydina Osman ibn Affan moom dañuy wax ne nodd bu njëkk bu ñuy noddu si jumaa yi sag juma nodd boobu Seydina Osman moo ko sos mu ngi sosu si xilaafa Seydina Osman te amutoon ci xilaafa Seydina Abubakar amatoon ci xilaafa Seydina Omar ba xilaafa Seydina Ousmane Ibn Affan si la am léegi nag duñ wax ne Seydina Ousmane Ibn Affan moo gën Seydina Abubakar duñ wax ne moo gën Seydina Omar duñ ko wax parce que moom noddu googu mi ngi sosu si xilaafam bu ñu delloo si Seydina Ali karamallahu wajahahu moom dañuy wax ne alquran tomb bu si nekk tomb tomb bii ngay gis alquran nuqta bi Seydina Ali moo ko def te mu ngi ko defee si mu ngi ko defee si xilaafam comme mu ngi ko defee si xilaafam te amutoon ci xilaafa Seydina Abubakar amutoon ci xilaafa Seydina Omar amutoon ci xilaafa Seydina Ousmane ba ba si xilaafa Seydina Ali si la Seydina Ali daal di tomb alquran wax nañ si njëlbeen wax ni ne Seydina Abubakar moom moo bind moo dajale alquran tuddee ko mushaf waaye nag kan moo ko tomb bi maana Seydina Ali moo ko tomb ku ko maas ñu ne Yaxya moo ko maas kon yooyu yëpp ay bidaatul xasan yoo xam ne la bi maana mi ngi amee ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen beneen bi mooy li may wax foofu mooy comme ñoom dañuy jël ne maanaam lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defut maanaam loolu bidaa la kon nag nañ jàpp ne kon alquran bii ñu jàng ni kon nañ ko jàppee ne alquran bi bidaa la léegi ginnaaw ga nag dañuy gis ne maanaam ñu si baabi ñu ngi ciy wax di wax ne kullu bidaatin dalaala te kullu kooku soo nee kullu kullu aam kooku mën ngaa daaneel sa bopp soo nee kullu aam kooku mën ngaa daaneel sa bopp te lii lépp nag maanaam li mu la limal mooy Seydina Abubakar dajale bu mu dajale alquran Seydina Omar mooy sos bu mu sos naafale waye ko si jàkkee ci benn imam niki noonu Seydina Osman nodd bu ñàkk bu mu bu sos si xilaafam Seydina Ali ni ko noonu maanaam alxuraan bu mu tomb yooyu yëpp amatoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maanaam di wax ne ñun ñii ñoo gën sallallahu alayhi kon nag ñu ñuy def mawlid laylatul mawlid dañuy wax ne ñu ñoo gën saxaaba yi parce que ñoom dañuy wax ne maanaam est ce que ñun ñoo gën saxaaba yi ndax saxaaba yi fekkee nañ jamono yéen sallallahu alayhi wasallam te dafuñu dafuñ dafuñ gàmm déedéet teetloon ñun ñoo ko gën parce que damay wax ne maanaam comme saxaaba yi dafuñu ko woon du ñu du ñu wax ne saxaaba yi xamuñu ko woon parce que damay wax ne comme Iblis moom ñeenti onk la onk ci ma si jamonom mooy bana ban mooy ba ko boom subhanahu wa taala rabbee inna alayka laanati ila yawmi beneen bi mooy ba ko boom subhanahu wa taala wàccee ba mu jëlee ko aljana wàcce ko foofu Iblis onk na onk boobu mooy yuuxu na beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu juddoo iblis moom tuñ yooxu na iblis yooxu na beneen bi mooy fatihatul kitaab moom tin ba mu wàccee iblis yooxu na yooxu yëpp nag dañuy jàpp ne képp koo xam ne yaa ngi bañ mawlidi nabi yaa ngi bañ gàmm di wax ne gàmm dafa xaram dañuy jàpp ne yow mii daal si njabatu iblis si nga bokk min mazhabil iblis kon loolu maanaam gàmm bidaatul xasan la am ay am am ay dalil yoo xam ne dalil si alquran la benn bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ne juddam lan la ba xam xéewal la wala mbugal la bu dee xéewal la kon boobaa mën nañ wax ne kon gàmmu mën nañ ko tëddee uh, si alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis bu dee mbugal la nag kon boobaa mën nañ wax ne kon boobaa mën nañ ñàkk gàmmu beneen bi mooy lan mooy gàmm lan mooy gàmm gàmm damay wax ne lan mooy gàmm ginnaaw ba ñu waxee ne gàmm am na ay dalil mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis ak xadis ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne bi maanaam man sanna fil islaami sunnatan xasanatan fa lahu ajru wa ajru man faala biha kon nga gis ne kon gàmm loolu dalil la si beneen bi mooy alquran moom tin wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ñu si bëri dañuy wax ne diine di mat na bi maanaam diine mat na ñiy jëfandikoo si alquran al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina foofu soo delloo si tafsiru Xurtubi imaamu Xurtubi dafay wax ne maanaam al yawma akmaltu lakum diinakum lu si boom subhanahu wa taala namm mooy lépp lu xaraamoon xaraam na lépp lu daganoon dagan na kon kenn daganuntut benn jullit muy xool loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala da koo xaraamal mu koy daganal daganul benn benn jullit muy xool loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa daganal lii mu koy xaraamal daganatu si jullit bi comme daganatu si daganatu si jullit bi mooy al yawma akmaltu lakum diinakum kon du dellu ci loo xam ne li ñu sos la wala loo xam ne bi maana lu li li lii kii la Euh, beneen bi may tëjee mooy dañuy wax ne ñoom dañuy wax ne euh, gàmmu dañuy wax ne ba xam lan la waaw dañuy wax ne ba ñoom dañuy gàmmu gàmmu euh, juddu sallallahu alayhi wa sallam wala dañuy gàmmu faatu sallallahu alayhi wa waaw ñun juddu sallallahu alayhi wa sallam la ñuy gàmm ndax waxuma juddu gi waaye dama wax ne comme ëmb bi ba ko Amina ëmbee aywa ba mu ko ay si la ko si la ko am lu mu ko dikkal aywa léegi nag wajaa aadama tabshirun wa siisu laha idrisu wa nuuxun wa xuudun wal xalilu simi summa dabixu kalimullahi kilmatuhu ah fi awali chahri fi tartibi laa tahimi loolu la ko Seydi Xaaji Maalik daal di daal di jàngale léegi nag ñu ñëw si lan mooy gàmm lan mooy gàmm damay wax ne ñun gàmmu gàmmu ngir lan faatu sallallahu alayhi wa sallam dañuy gàmmu ngir lan juddu sallallahu alayhi wa sallam benn mooy al ijtimaa li li taawuni alal xay bi xiraatul quran awalan mooy xiraatul quran mooy jàng alquran parce que jàng alquran borom subhanahu wa taala moo ñu ko sant yéen sallallahu alayhi wa sallam jaa si yéen sallallahu alayhi wa sallam yéen an si xadis ne yàlla am na ay ñoñ ci kaw suuf mu saxaaba yi laaj ko mu ne leen ahlu ahlul quran wum ahlullaahi wa xoosa beneen xadis mooy bi maana xayrukum man taallama alquran wa allamahu xiraatul quran la asolaatu ala nabi julli si yéent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que dañuy wax ne képp ku julli si yéen sallallahu alayhi wa li ngay def na bidaa la te boom subhaanahu wa taala sant sant sant mboolem mboolem ku gëm yàlla mu julli sallallahu alayhi wa sallam inna وملائكته يصلون على النبي yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima beneen bi mooy tagg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que dañuy wax ne ñoom kon dañuy wax ne tagg sallallahu alayhi wa sallam daganul déedéet duñ ko wax ndax tagg sallallahu alayhi wa sallam bi maanaa loolu gis neen si ay xissa ku su mel ni Kaab ku su mel ni imaamul Busayri gis neen si liñ ci am ñoom beneen bi mooy مي ذكر شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم مي تد لن سجك ينتبي صلى الله عليه وسلم فسك ينتبي صلى الله عليه وسلم مم تد لن سجكم داي دون الخل داي دون سخل تد لن سجكم داي دون سخل بان بموي موي لان موي ولبتكو بمعنى سني دوم آدمي في مجال يالله واتقوا الله ويعلمكم الله soññu doomu aadama yi si ragal yàlla ragal boobu subhaanahu wa taala kon beneen bi mooy itaamu taam taamu taam mooy toggu ñam jox ko ay nit ñu koy lekk togg ay nit togg ñam jox ko ay nit ñu koy lekk comme euh, Seydina Abdul Xaadir Jaylaani wax na ko ci benn xutbaam nee na nga jox benn nit tubb lekk ñam mu lekk ko moo gën nga tabax alfu jaamia du nay jàkk aywa léegi jël ay ñam wala jël ay ay ay ndox ay ay naan yoo xam ne naan yi laab la nga jël ko jox ko doomu aadama koy naan loolu idhaabu quwati muslim ni ki naan beneen bi mooy feeñal bu ñuy feeñal kattanu jullit ñi feeñal bu ñuy feeñal kattanu jullit ñi kooku ba léegi ci gàmm lay delluwaat wa haybatuhum wa mada taazimahum li nabihim sallallahu alayhi wa sallam ak ñoom seen hayba ak seen sopp bu ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi yii kan moo ko man kan moo mën a wax ni lii bidaa la lii bàyyi ko ndax jàng alxuraan kan moo lay fekk ngay jàng alxuraan mu li ngay def ni bàyyi ko kan moo lay fekk ngay julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne la li ngay def nii bàyyi kan moo lay fekk ngay tagg sallallahu alayhi wasallam mu ne la li ngay def nii bàyyi ko kan moo lay fekk ngay tudd lenn si jukko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne la li ngay def nii bàyyi ko ak kan moo lay fekk bi maanaa ngay togg ay ñam di kay jox ay doom jaamu yàlla yi ñu koy lekk wala ngay jënd ay ndox wala ay naan di koy jox jaamu yàlla yi ñu koy naan kan moo lay fekk ci jëf yi baax yi di lay wax ne lii ngay def nii bàyyi ko kon gàmm ci tënk loolu mooy gàmm du leneen ñoom lu ñu foog du loolu ndax damay wax ne fépp foo gis fu ñuy wootee woo diine am na si ñoo xam ne diine yëkkatiwu leen xatta màkk ñi dem di aji am na ñoo xam ne aji yëkkatiwu leen est que dañuy wax ne aji dafa xaram hmm? léegi jullit jullit ñi am si ñoo xam ne nee na ay jullit leen te duñ julli est-ce que dañuy wax ne jullit ñëpp bon est que dañuy wax loolu est que dañuy wax loolu parce que dañuy wax ne comme jullit ñi ñëpp bokkuñu yem ah ñëpp bokkuñu yem ni ki noonu gàmm ñii ñëw ñi ngi yàlla dong tax ngir ñëw ngir déglu si déglu si bi maanaa lenn si jukkee yonent bi sallallahu alayhi wala ngir ñii ñëw ngir lan di def seen salaatu ala nabi wala ñii ñëw di def seen xiraatul quran walla ñii ñëw di togg ay ñam wala ñii ñëw di joxe joxe joxe joxe ndox ngir ñi ni naan ñooñu loolu lañuy wax gàmmu leneen lu si waay leen lu si waay dolli na loolu dañuy wax ne loolu bokku si aywa loolu bokku si parce que ñoom dañuy wax ne lii nii ku ne lii lii dafa xaram ah fa ayna al xaraam fii dalik lii fan la xaraamee ah jàng alquran julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zikar ni ko noonu tudd leen si jukki yonent si sallallahu alayhi wa sallam comme ni koy Cheikh Seydi Mahamadou Moustapha di defee ayo di togg ay ñam di koy jox jaamu yàlla yi niki noonu di jël ay ndox di koy jox jaamu yàlla yi ñi ñi koy jëfandikoo lii fan la xaramee kon mbokk yi ñi bàyyi si xel lool ñi bàyyi si xel bu baax a baax ndax ñi yàq ñi ngi fi te amuñu benn dalil kenn du la andil ne gàmm fi la fii la yonent bi sallallahu alayhi waxee ne gàmm dafa xaram am na ay boom xam-xam yu si wax parce que ñoom ñoom ñuy wax noonu gàmm dafa dafa xaram parce que Muhammad ibn Abdou Wahab ñoom bisu juddam ci jotee ñoom dañ koy dañ koy màggal waaye nag maanaam ku tax ñi bind Muhammad ibn Abdou Wahab koo koy bisu juddam ci jotee moom des na ko des na ko màggal bu defee ñuy jaajëfal mbokk yëpp di ñaanal suñu kilifa a Cheikh Seyd Mahamad Moustapha yàlla sàmmal ñu ko yàlla aawal ñu ko yàlla laaxal ñu ko fa lox yàqat yàggul moom ak maam Cheikh Ahmada Tidiane si capitaine يلا دفل كوم بولم جبوت ان شاء الله تعالى دي نيات مامشا احمد تيجان جوب دي نيو مبولم كي صفو مكتوم بو ان شاء الله دي وخني يا يامالي كادي تي غاتال ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفيقي الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته agence immobilière diaspora sopp na bi ñëw ngir réaliser seen rêve yow mi bëgg terrain papier yu légal ñëwul fii ci diaspora sopp na bi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer la sa wàllu construction ca na nga ko bëggee seen yéene mooy bépp sénégalais am dëkkuwaay ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi Thiès adresse 2 voie Nguinth près de la mosquée de la ZAC bu ngeen bëggee dégg dëgg daal njuuj njaaj ci wàllum suuf jeex na fi ak diaspora sopp na bi dafay tegu ci dëgg ànd ak jub ak jubal diaspora sopp na bi mooy solution bi wóor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 pharmacie Al Maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie Al Maktoum solution bi fi la fekk bax. pharmacie Al Maktoum ay produits disponibles disponible partout au Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee ñi nekk Sénégal joko leen ak Mam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee ñi nekk ci douane Italie joko leen ak El Bachir Faye numéro bi di 39 338 916 03 90 bu dee ñi nekk ci douane Espagne Barcelone ak Liko wër joko leen ak Cheikh Sadibou numéro de plus 34 602 11 12 28 Yenine ñu nekk France Paris ak li ko wër plus 33 744 75 08 39 yéen ñu nekk ci Angleterre woote leen plus 44 77 22 08 89 57 Yenine ñu nekk ci Maroc Djokolen leen ak Cheikh Tidiane numéro de plus 212 681 289 672 li gëna neex ci pharmacie Al Maktoum indi nañ len savon yu tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di defar sa tey ba mi nes nesi kon nak gaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wirgu yaram baxna ci domi adama jarama pharmacie al maktoum